ñaari mbër yaa ngi xeex Bébé Balla mooy bëree ak ki nga xam mooy Less Lirou jàpp na ko takk na ko Bébé Balla takk ko ñoom ñaar dem nañu jargandalu ci suuf xale yee mën a bëre waay la ilaha illallah ndaysaan Bébé Balla ngi noonu mi ngi dóor ak fils de Lirou Bébé Balla ak Fils de mi ngi dóor ci suuf Bébé Balla ak Fils de ñoom ñaar ñi ngi bëre ñi ngi la eh, ndeysaan jàppase ne ñoom ñaar ñi ngi dem ci suuf mi ngi ci kaw saaku yi génn na génn na saaku yi ay taw abi bi sifle war ci ñaari mbëri Bébé Balla ak Fils de Lirou Bébé Balla moo demoon àdduna dellu si waat na arbitre bi sifflé na arbitre nee na ñëw leen ci biir round ñaari mbër deme wet ndeysaan ñu ngi fi ci arène nationale ndeysaan ñaari mbër noonu Bébé Balla ak Fils de Lirou Bébé Balla gëdd waaye demul Fils de Lirou dóor na eh Bébé Balla dóor na jàppante nañ ñoom ñaar Bébé Balla ngi dóor dem nañ ñoom ñaar def na attention jël na saako yi. arbitre sifflé waat na merci beaucoup Doudou Mbaye Fils ginnaaw fii Fils de Lirou ak Fils de Balla ñoom ñaar Fils de Balla dóor na benn droite moo am ñaari avertissement waa Grand Médina ngoog. waa Grand Médine sànni na benn gauche mais man mbëru ñoom Seydina bi dafa xaw a calle de attention mbëru ñoom Seydina daan na laay lay la booy Cambérène daan na fils de Lirou daan na eh ay mi ngi reetaan waay oh Seydina mi ngi filmé di reetaan Cambérène la xoola ay supporter am ci kaw waa Cambérène ñoom ñëpp màbb nañ tey kenn demul géej tey kenn demul si sikar oh, gasu kontaan na tey kenn sikarul <laughs> waay fils de fils de fils de liiru liiru jaan bég na oh léegi liiru jaan léegi yow père liiru lañ lay wax papa liiru sa doom moo am ndam eh ay doomu jaan am na ndam waay doomu jaan jaan lay doon budul jaan ñu dagg bopp bi ay eh waay Seydina kontaan na Seydina de mi ngi filmé di ree rek waa Seydina doyul bu doon beneen mbër la pare nga bu yàgg Seydina Seydina bàyyi say démocratie si làmb ji dafa war a am oh fils de liiru am na ndam ndeysaan ki ñu doon jël magam ji magam ji lañ daan ay waay sëy naa daan na magu jàmbur <laughs> ndeysaan da ngaa kontaan di jooy nii. wallaay kii sama rakk la. kii lu ma nekk lu ne daf ciy nekk. kii dafa mel ne ñoo bokk ndaay ak baay. combat sama kër la ko waajee. bàyyi ay waajuram daaru cubu ñëw sama kër waajee fa làmb ji làmb ji sant yàlla daal maa ngi sant yàlla baax di sant waa Cambérène yëpp gis naa nu ñu jàppee boobu gis naa nu ñu jàppalee. di ñaanal bébé Bisu Ndoye yàlla suturaal ko may ko ndam ci combat bi mu jëm ak képp kuy mbëru Cambérène yàlla suturaal may la ndam Tapha Mbeur na ko yàlla may ndam ak bépp mbëru Parcelles ak Cambérène yàlla na yàlla suturaal di leen may ndam kon yow àndoo nag sa sago booy bi di bëri non booy bi li mu doon man la nit ñu la toll rek nga koy toll comme ñoo bokk ndey baay Cambérène ñu bari dañoo yaakaar booy bi sama rakk ak xan la bokkuñu ndey bokkuñu baay ñu si mais fi ma toll man maa ko xam booy bi sama nit la sante naa yàlla nag ci ndam li am bu baax a baax a baax sant naa ko suñu borom lépp yàlla la waaw lépp yàlla la.